Pape Demba bi tey la ñuy duut baaraamu tuuma mooy le directeur général moom lañ koy duut parce que moom si boppam moom xam na ce qui se passe tey jii nii li nga xamante ne mi ngi ko taxal ci lu matul ci lu matul weer. tudde ko tudde ko tudde ko beneen tur boo xamante bu kenn mun mënta xam la ba pare jël sunu ñun suñu tur sax da koo jël di ko ma suñu tur yi la war a bàyyi prestataire bi ñun sax bàyyi nañ la prestataire bi léegi. léegi ñun exploité de la Sénélec léegi ñun mën nañoo tudd noonu parce que ñoom bu fekkente ne nee na ñun dara lié wuñu ak ñoom keroog ñun bi ñu demee toog. am na lu ñu wane te am na lu ñu téye ay preuve yu dul jeex yoo xamante ni mooy wane ne ñun am na ñu lié ak Senelec mais saaga saaga nag mënta passé ñu yabal nit mu naan dara lié wu ñu ak Senelec te tamit Senelec du bitiku mbagg du du du du marché Thiaroye du du du marché Sandaga société nationale la war naa am moom mot gu tol ni ay nit di xëy ci sa biir agence di connecté ay données di la indil di exercer di ñëw te doo ko delloo jamais benn yoon te xam nga leen bu baax a baax ñi ngi ci biir agence bi di xëy di wàcc. mais ñooñu noonu soo waxee ne am na amul dara lu la lié ak ñoom mais affaire boobu noonu luus na trop Senelec lan la mën a sàgganee ba ñooñu di xëy ci agence am di si wàcc di connecté ay données di di di exercer ay ay ay liggéey ba pare ñoom ñooñu nekk fi ñu xam ko ñëpp xam ko te ñoom mënuñu mënu mënuñu wax ne euh, mënuñu wax ne gisuñu leen parce que ñu ngi leen di fay seen xaalis même bu fekkee ni ñu koy jotee dafa métti balaa ñu koo jot bëgg a dee mën ngaa toog a doo ko jot kon kooku noonu waroo wax ne dara liyeewu ma ak moom. loolu ci manque considération daf ci am loolu reconnaissance gisuñu ko benn yoon suñu diggante ak Senelec